ah kon nag ñun eh, ñun association Daara Yalwaan bu Thiès ñoo daje woon tey pour joxe sunu xalaat ci li gouvernement bi wax li jëm ci yalwaan ndax am na lu ñu xam loo xamante ne moom xamu ko donte nag ñoom itam am na lu ñu xam lu ñu xamul waaye bu ñu àndee boole kenn ku ne li nga xam rek bu ko defee li ñu bëgg ci daara yëpp danañ ko am bu fekkee ne woowuñu ñu bu boobaa dañuy xam ni ñoom bëgguñu li ñuy wax ne dañoo bëgg defar daara yi bëgguñu koo defar ndax ku bëgg defar daara ña yor daara di ca yëngatu loo ca bëgg defar ñoom ngay toogal ndax waxtaan ak moom ndax tey bu bëgg no yalwaan bi moom insha allahu rabbi dafay continuer ñun moom lu ñuy tax a teg suñuy pot lu leer nañ ñi lay doon lu ñuy tax a teg suñuy pot lu leer nañ ñi lay doon ndax moom kooni kooni kooni kooni bul yalwaani da nga koy jox añ jox ko reer jox ko ndékki waaye ku la joxul añ joxul a reer joxul a ndékki te da ngaa war a dund te nun nag duñu dee nag te duñu nangu kenn ku ñu rey waaw duñu dee te duñu nangu ku rey yelwaan bi ñu ñun nii ñëpp ganaaw yàlla koo ci gis mu màgg doole ju ma am yelwaan ci yelwaan la ko jë ñun nii ñëpp yelwaan moo ñu dundal kon nag la la dundal nag ku jóg taxaw ni daf koy daf ko fii jëlee loolu moom bakkan lay laaj moom loolu rek laa leen wax bakkan rek lay waaw te réew mi nekk réew mu nekk waaw réew mu nekk ak culture am ndax yalwaan ñun andi sosuñu ko yalwaar sosuñu ko fii lañ ko fekk maanaam sunuy maam yi maanaam depuis sunuy maam ak sunuy maamaati maam yalwaan a ngi fi yalwaan lu mu defarul fii maanaam yàqu ko fi te ku weddi nag ku weddi li daara génnee man produit daara yëpp nañ ko génne woo leen ñu ñëw taxaw xool beneen produit ñu teg leen ñu xool kan nga ci gën a baax produit même ñi jaar daara te nekk ministre jikkoy rafet yi ñu am ci daara lañ ko jëlee même ministre koo ci gis mu jaar daara mën naa cee cité sax bu ma neexee ministre Thierno Alassane Sall jikko yu rafet yi mu am ku ko gis ak ni mu noppee ak ni mu dëggoo ak ni mu ñàkkee caaxaan doomu daara la te daara la jaar dégg nga te loolu mën naa cee cité ñu bëree bëree bëri Cheikh Abda Cheikh Abdallahi Dieye Cheikh Abdallahi Allahu wahidun ni mu leeree ak maanaam njikkoom ni mu mel ak ni mu ñàkkee caaxaan doomu daara la imam mbay Niang doomu daara la kon gis nga fi mu ne koo ci jaar daara boo ko gisee te jaara defar la ba nga génn ministre ministre Abdoulaye Diop finance maanaam doomu daara la xool leen ko li mu yor finance kan moo ko mës a yor ci ci réew mi ni mu yàggee finance bi mu génneeg léegi dégg ku ne dégg naa ñu xas ko ku ne dégg naa ñu saaga ko ku ne dégg naa ñu sànni ko xeer mais ministre Abdoulaye Diop dégguma ko kon dama bëgg daara ak lu dul daara bokkul daara daara la lu dul daara dara la waaw dama bëgg nag mu xam ne ñun ñu ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala li nu yàlla sédd muy suñu teraanga nag dañ ciy jàpp maanaam bu baax a baax a baax